asalaamaaleykum gars yi nuyu naa leen da leen ak jaamu ci Sen Sport 221 English Premier League la koy dooree ak Chelsea football club bi nga xam ne tey jii dafa dal di daanootu ci dëkkam ñaari bal ci dara Aston Villa moo ko fekk foofu la ca Etihad Stadium wala boog ca Stamford Bridge dal di koy duma bokk ñaari bal ci dara mu nekk jongante goo xamante ni kat gis nañu ne ñii di Chelsea daf leen dénk xeeñ ñu dal di yéeg ci li nga xamante ni mooy dix premiers yi fi mu sax bu ñuy xool ca dixième place ba ñu nekkoon dem ci li nga xamante ne mooy onzième place ba. fukkeeli place bi nga xamante ni daanaka mën nañu wax ne noor bi yëpp fa la nekkoon dal dinañu fay jógee gën a wàcc Chelsea daal mel na ni seen i mbir ren narul dox ñaari bal ci dara laa wax ci seen dëkk la ñu leen dal di dóor Aston Villa nag moo leen ko teg mbirum Graham Potter kon mu ngi gën di tey xel donte ne ñi nga xam ne ñoo dirigeant Chelsea football club ñu ngi wéy di ko gëm waaye daal jàpp naa ne kii fa mu jëm ak équipe bi ndox amu fa voilà kon yëguñ sax li xew dañoo ñëw daal di seen doole voilà mel na ñoom championnat bi ren neexaluñ ci kenn ci match boobale nag ñu gis kii Gabriel Jesus daal amal doublé moom nag mu nekk joueur boo xamante ni kat dafa amoon blessure depuis ci mondial ba ay weer yoo xam ne mu ngi ko tëddoon ko faji waaye ni mu dellu am na solo ndax dafa ñëw rek tegaat ko ci ci forme nekk moom Gabriel Jesus tey ji doublé la amal voilà ci jogante googule ñeenti bal ci benn daal gannaaw bi mu jóge woon ci blessure voilà ñu gis ne mu ñëwoon fii ci sélection nationale ñu dal di koy joué loo mu dellu ñu daal di dégg nga maam la ko euh, tutelaire loo ko euh, mu enchaîné kon tey ci jogante googu mat bu baax la def tey voilà moom kii di Moussa Niakhaté dañoo mat nil nag. gannaaw bi ñu jiite woon benn bal ci dara waaye daal di sàggan ba dégg nga maam ñii di eh, Wolverhampton dal di ñëw égaliser ci match boobu Cheikhou Kouyaté dellu si na moom dal dinay dugg kon ci second mi-temps bi moom mi nga xam ne moom itam dafa amoon blessure doon ngeen dégg bi ñuy waajal suñu match yi fii ci Sénégal ñu doon Cheikhou Kouyaté ñëwoon na seet ci gaynde yi ba entraînement yu njëkk yi sax mu àndoon kook ñoom kon fi mu ne nii wér na dara jotatu ko ba tey ji mu dal di dugg jeu ci match boobu nga xam ne ñoom doon nañu ko am ñoom waa Nottingham Forest seen digganteeg dégg nga ñii di waa Wolverhampton voilà buñ démé nak France fofu gis nañu mbay ñaar tay ji nak daldi marqué bit bi nga xamné momay équipe bobu di Auxerre ñu daldi di gagner ben bal ci dara wala mbay ñaar mo duggal bit bobu le bobu mo nek 4e bit bo xamné duggal nako kon ci saison ren bi le bu dé ci Turki nak ki nga xamanteni moy Mam Baba Thiam mom itam bital la ak équipe bobu di Kayseri Sport ci match bo xamné ñom ñong ko doon am seen digënté Trabzonspor bu dé Allemagne ñu gis nak ki nga xamanteni moy Sadio Mané ak Bayern Munich daldi gagner li nga xamanteni moy sok bi doon dox seen digënté ak Borussia Dortmund Dortmund nak bu ngeen fatalé ko mom mo jitu won ci classement Bundesliga bi bi tey ji Bayern daal dina koy wàccee ndax daf ko dóor yëg ci kawam fi mu ne Bayern mooy jiitu ci bopp classement bi gannaaw bi mu doore Dortmund match boo xamante ni sax Bayern do amoon na lu toll ci ñeent bal ci dara 4-0 la jiitu woon waaye seen càggante tax ba ñii di wax Dortmund dugal ñaari bal benn bi penalty la ñu gis nag ki nga xamante ni mooy Thomas Tuchel kon dal di door ndorteel gu ama am solo voilà ni mu dooree moom dal na xel waaye match la boo xamante ni kat ñu bëri ci seen ci yi dañu leen teg ban rawatina ñi nga xamante ni dañu doon door jongante yëpp rawatina ku ci mel ni Jamal Musiala tay ji dañ ko tek ci banc bi voilà waye nak ñu gis ay ciopita yo xam dal na koy indi dal ci li nga xamantene moy 11 bi ak formation bi nga xamantene mom wute la footballé wuté ak bi nga xamantene de kidi, nga mom la ki di Nagelsmann doon footballé ñu gis Thomas Tuchel kon tay ji dal di tambali wala li nga xamantene ne na moy ay ciopité wala bo xam-xam bu mu indi kon ci équipe bobu di Bayern na mën ci waye nak ñu gis suñu Sadio Mané ñaancoo national dal di dugg ci second mi-temps bi waye dal mom mel ni ay mbiram doxagul ndax kat bi mu duggé dañ ko don joué comme attaquant de pointe ndax ki nga xamantene moting dafa génn Sadio Mané dal di dugg waye dal gis nañu dal ay difficulté dëgg la doon dund ci li nga xamante ni mooy kanam googule mel na ni daal voilà ballon yu bari yoo xam ne daal dinañ koy jox dafay daal di yàqu ci tànkam Sadio Mané dellu seegul de Sadio Mané moom xam naa ne amaguñu ko à 100 pour cent voilà xëy na sax 75 pour cent gisaguñu ko tey jii daal gis nañu match bi mu def daal doy na waar neexul analyser kon mën na def match bu gën bi nga xam def na ko waaye loo ci mën a dégg moom équipe am gagné na muy ñi nga xamante ni ñoo di waa Bayern Munich voilà Mbappé Kylian Mbappé nag ay mbiram jamono bi kayiti xibaar yi yëngalati nañ ko ndax ne nañu dey Mbappé dafa am yéene dem foofu la ca déngaam Real Madrid ba dal dina informé informé na ñii di euh, dirigeant Real Madrid xamal leen ne daal moom bëgg na fa dem jouer ji voilà bu fekkante ne xëy na dégg nga maam ci saison 2024 2025 xëy na maanaam déwén waaye nag loolu nekk mbir moo xamante ne ñi di Real Madrid ni ko kii di xibaar bu bile de ñoom yëgaluñ ko sax seen yaram ndax ñoom nenañ doon dootuñu def benn mouvement maanaam di jël di dégg maam bougé naan dañuy dem di négocier ak Paris Saint-Germain loolu moom jeex na loolu dootul amati mukk ci kii Mbappé fi ne nii daal ñoom dañuy dañuy toog rek faslante seen loxo di seetaan bu fekkente ne Mbappé li mu wax dëgg la naroon li nga xamante ni mooy contrat am bu jeexee mu dal di ñëw voilà loolu de mën na nekk waaye ñoom du ñu jóg mukk dem naa dañuy négocier ak Paris Saint-Germain ba ci amaat gàcce comme la leen ca daroon loolu la bañ mu dalaat leen moo tax ñoom xibaar boobu nga xam ne jot nañu ko yëngalu leen ñu ngi toog di seetaan ba xam fan la mbir moomu di mujj ñu fàttali leen Mbappé dafa signé waat ñetti ati contrat ak Paris Saint-Germain wala boog ñaari at ak beneen at boo xamante ni option la voilà kon mën nañu benn bi dóor nañ ko dèjà bi ren bi bu jeexee benn ciy des jeexee Paris Saint-Germain man nañu ko jaay waaye nak saison ba déwén bi bu jeexee fofu mom option la bu ko nexé day wat benen comme deggu woon nañ ci ba nopi bu dé nak manam dafa décider ngir dem lolu benen bir lay doon waaye daal amna li nga xamante moy ñaari at ak benen bo xamné option la ak ñi wa Paris Saint-Germain kon koku sori na ngir fofu le kat ndax déssana na at bu wo kong ak benen bo xamné ne ñu koy sentu voilà kon ñu xaar ba xam fan la mbir moomu di muju tënk lu won ci xébar gaay dinañ délé si ak yeneen info continuer len suivre Sen Sport 221 the best sport news channel